arbitre bi sifflé na Moussa Mbagnick ak Kaw Gourdin Kaw Gourdin moo leen féete càmmuñ Moussa Mbagnick moo leen féete ndeyjoor ndaysaan ñu ngi ci finalu compétition bi final lese bi fii ci arène nationale journée Ndiaye production njiital ba di Fallou Ndiaye mise bi moo nekkoon 4 millions lii mooy fois final poids lese bi ndaysaan ndeysaan ñu ngi ci ba tey ñoom ñaari mbër yi ñu ngay lewaatoo Kaaw Gourdin ak Moussa Mbagnick ñoom ñaari ngi noonu Kaaw Gourdin Moussa Mbagnick Kaaw Gourdin Moussa Mbagnick Kaaw Gourdin Moussa Mbagne Kaaw jël na ko dóor na ko tànk musa bañ na Kaaw jàpp na fi jàpp baax na wala déet musa rëcc na Kaaw Gourdin Moussa Mbagne ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey daan na ko Kaaw jël na final ba dàq na ñëpp ne leen ñibbi Kaaw Gourdin dàq na ñëpp ne leen dem leen ñibbi Kaaw Gourdin jël na final bi ci kaw Moussa Mbagnick ndeysaan mu des ci final lourd bi